yaa xayra dayfin aadaa bil bishri wal madaadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi yaa xayra dayfin aadaa bil bishri wal madaadi ahlan wa sahlan wa مرحبا بلا أداد بسم الله mbokk yi ba tey ci naafile yi ñuy jëlee ci xurratul ayni sëñ bi mu ngi fay wax ne guddik fukkeel ga ak juróom ci weeru koor ku ci naafila juróom benn rakka rakka bu ci ne mu jàng faatiya benn yoon jàng ci suratul nasri mu isaa jaa nasrullahi benn yoon jàng ci suratul ixlaas fanweeri yoon ak juróom dees na nangu ak julleem ak kooram te lépp lu mu mës a def ci ay ñaawteef dees na ko ko suppil ay yiw te xaraf wu ci ne dees na ko ca tabaxal dëkk bu mag ca àjjana mel na ni it ku lele mbooleem xeetu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadin yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadin